ginnaaw bi nga xam ne cour de justice bu CEDEAO dafa wax Sénégal ne ko na dindi parrainage bi donc loolu la doon xaar bien avant même le CEDEAO aujourd'hui bi nga xamante ne tëj nañu ko biram Sénégal quand même réew moom boppam la quoi yaa ngi dégg mhm. donc ni ñuy doxale suñu réew ñu ñoo koy xalaatal suñu bopp mhm. même jurisprudence Malick Gakou boobu ñuy wax mais Malick Gakou j'ai beaucoup de respect pour lui liñ ko laaj lu ëpp la indi mais bi ñu xoolee la va lu mu tudd vali lu mu tudd yu euh, yu yu yu va mais cinquante trois mille et quelque bi ko laaj ama moo tatu ko woon. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar arrêté ministériel bu ñu jël sa à dire que c'est simple la laaj ci parrain boo indee lu ko gën a néew bokkuloo soo indee lu ko ëpp c'est nul et non avenu loolu kay yomb na maintenant leneen lu ñu ci teg nag yoon jël dogal nga taxaw ne non élection du am loolu may ma ma ñëw rek. loolu loolu wax yu yàqu la réew mi dafa am lu ñu ko dënk ñu ko dënk mat li ñu leen dënk ni ko Abdourahmane waxee ci dëkk bi la juddoo jànge fii am jaar-jaar ñu dem xëccoo ñu dënk ñu ñu ciy gërëb yàlla di ci sant Sénégalais yi donc ku taxaw ne élection du am pour ñun yëfu xale ngay wax bu la neexee tëgg say bool def lu la neex xalaatoo malade xalaatoo ku nekk période d' examen xalaatoo carte d' affaires wala fu ay ministère nekk. mais du on ne pas la parole vous n'êtes pas le le. sëñ Saliou s'il vous plaît terminé. baax na baax na jërëjëf alors Ousseynou. cour suprême gis nañu ko mu rejeté li nga xamante ne. moom mooy plainte bu maître Abdoulaye Tine sans pour autant. sans pour autant Biram s'il vous plaît. non mais non kii il faut nga wax ak moom d'abord Biram s'il vous plaît. non non xam nga man Fatou. Biram Biram Fatou xam nga ma ne laa ñëw fii. Mhm. ça je sais non defal ndànk rek. xam nga ma ne laa fi ñëw ça je sais Biram. xam nga ma ne laa fi ñëw ça je sais.

dagguma kenn mais bu ma di dagg. waaw c' est que di ma di ma dagg bon Birame c' bon mais mais li ma la. non non bi non non si vraiment aussi. ma dagg Serigne Saliou. non non mais sa tur bi rek laa rus. alors non s' il vous plaît. non non non moi je suis très serein. tey moom Birame depuis 25 ans ah, li may def xam naa non non non je ne reçois pas alors il, il faut qu'on poursuive le débat. vous ne pouvez pas me donner de leçon, mon cher. Birame voilà Birame il faut qu'on poursuive poursuive aussi débat bi alors Ousseynou cour euh, cour cour suprême euh, bañal euh, plainte bi nga xamante ne maître Ablaye Tine moom la ko jébbaloon plainte bi bi mu ko koy bañal moom prononcé wul sax. ci arrêté boobu nga xamante ne moom moo tukkee euh, ci fi nga xamante ne moom mooy euh, cour de justice bu CEDEAO wax ne Sénégal na dindi parrainage bi dox ko diirub juróom-benn weer ndax sax nekkul peut-être optimisme bu ëpp bu fekkee ne amoon ngeen yaakaar ne cour suprême dina nangu loolu ba ñuy wax ne mën nañu reporter ces élections législatives euh, déjà je je précise hein, fois yu utiliser CEDEAO c'était pour faire montre d'une force cest euh, moom laa gis koo xamante ni da dem euh, daje ci chef d'état CEDEAO yi mais à chaque fois boo utiliser décision CEDEAO c'est pour wane doole quoi ma koy fàttali c'était le cas de Yaya Jammeh bi koy dindi donc on se demandait même est-ce que c'était pas un problème personnel entre moom ak Yaya Jammeh parce que c'était lui qui était au devant bien que c'était une décision communautaire beneen bi mooy Mali li nga ko dégg mu wax ci déggoo beneen chef d'état CEDEAO bu ci wax bon on me dira que euh, c'est le président de l'Union africaine d'accord mais man li ma constaté moo di saa yuy wax ci CEDEAO wala muy muy dëggal lu CEDEAO di def cest dire luy wane doole la loolu la def ci Yaya Jammeh loolu la def ci def ci def ci Mali CEDEAO li ñu wax dafa leer par rapport ak parrainage bi euh, te comme ni ko Serigne Saliou waxee c'est des juridictions supranationales c'est-à-dire ba fii ñuy toog nii bu ñu fi jógee ba fii ñuy def di def débat bi un juriste xanaa nga nekk un juriste bu sérieuxul mënoo fi gis juriste bu la fi woo wala mu àndi la fi luy wane ni say sa constitution wala say loi ñoo ëpp doole décision communautaire mais le Sénégal est souverain Ousseynou. souverain et boobu ñoom également. mais léegi Sénégal bu bëggee souverain bu mu ratifier ay charte quand on appartient à organisation nga ay charte tey jii yaa moom sa bopp yaa moom sa liberté jàng nga am nga xam-xam mais pourquoi boo ñëwee seen TV di fi liggéey ngay signé règlement intérieur te pourtant am nga sa liberté de. Mhm. parce que da nga bokk seen TV moo tax. n'empêche yaa ngi sa liberté mais Sen TV dala ne sooy ñëw fii di fi liggéey di fi exécuter da ngay ko ci lii ak lii ak lii ak lii nga d'accord ci signé Sénégal dafa bokk CEDEAO bis boo bëggee souverain totalement danaan damay génn CEDEAO damay génn Union africaine maa moom samay loi dëkk maa moom samay constitution lu ma neex laay def boobaa nag su ñu waxee Sénégal ne ko da nga war a appliquer lii mu ne leen bu leen ma fontoo mais tant que le lu mu ratifié c'est-à-dire non seulement da koy ratifié mais dafa war a ñëw dëkkam xool son architecture judiciaire est-ce que la mu ratifié dëppoo na loolu bu nekkee dëppoo na mu doxal bu dee dëppoowul dafa am obligation adapté ko c'est ça qu'on appelle l'implémentation des chartes signées donc CEDEAO Macky Sall war na ni faalewul CEDEAO te du bi ci parrainage bi parce que parrainage bi li CEDEAO waxul sax ñu dini parrainage bi CEDEAO dafa ne nañu xoolaat parrainage bi parce que dafa am benn principe bu fondamental et que li paradoxal mooy conseil constitutionnel seen décision bi ñu rendre décision numéro numéro huit sur la liste de Dakar dañu évoqué loo xamante ni moom la CEDEAO évoqué bi muy wax état ne ko xoolaatal parrainage bi te ko ne dangay ngay benn principe bu am solo mooy le principe d'une libre participation à des élections conseil constitutionnel bi muy rend décision numéro huit pour la liste de Dakar daf ko évoqué dem leen lire considérant yi donc c'est pas quelque chose de banal te bu ñu wax ni Macky Sall moo andi parrainage ci géopolitique ci élection andiwu ko de dañ ko étendre au parti politique c'était pour les. mais les candidats indépendants sont étaient obligés de soumettre dix mille signatures looloo taxoon Youssou Ndour élection présidentielle 2012 bokkul. c'était ça donc. il y avait le parrainage des élus. des élus. loolu moo fi indi woon xeex bu métti ba ba ce jour-là il y a eu plusieurs morts pour dire que parrainage dafa am une histoire c'est-à-dire c'est il y a une histoire sanglante. donc gis nga nag ni mu amee histoire bu sanglante buñ ci moytuwul dina créer waat yeneen jafe-jafe. mais mais vous vous avez laissé faire maître Abdoulaye Tine. am courage. xaaral xaaral ma ñëw moom sax dem. xaaral ma ñëw cour ji nga cour société civile di wàcc yéen a ngi parrain aussi. non non non euh, non non euh, non. contradiction ci ay jàmbat. déet avril deux mille dix neuf euh, dix neuf avril deux mille dix huit dañoo wàccoon ci mbedd mii di xeex parrainage ah non bu ñu am ah avril deux mille dix dañu wàccoon ci mbedd mii di xeex. bi ñu koy vote à koy voté. bien sûr mais bu ñu d'accordoon bu fekkoon ni nous euh, dañu dañu complice woon wala daf ñu arrangé woon te pourtant nous bi ñu wàcc di xeex. mais mais Ousseydoue qu'est-ce qui yi ngeen ne carrément. Fatou xaaral ma ñëw je vais en venir à ça. oui ba ma daggee tamit je risque de perdre le fil conducteur. mësuñu ne euh, parrainage ni ñu ko defee. baax na ça nous convient bien que nous nous savons que étant parti et comme coalition on n'a pas de problème de parrainage mais le principe quand le principe est biaisé dans un jeu politique dans un jeu démocratique donc képp kuy démocrate da nga war a jug taxaw parrainage bi ñuy wax tey ñun 2019 euh, avril 2018 dañu weccoon ci dañu wàccoon ci mbeddu Ndakaaru fii doon xeex ñu jàppoon ci suñu ay nit am na ñoo xam te lakkoon nañ ci loxo et tout ça donc on a toujours été dans ce combat de nag moom moo wax la Euh, Biram dafa wax waaw euh, ñi fi ñi fi ñi fi jàng juge yi di juger wala ñu nekk ci justice bi kenn gënu leen xam seen liggéey mais ji nga seen liggéey tamit